asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi tam ñu nga xam ne ñu ngi safoo site bi tudd wasaare lamb. Mhm. te di ko bëggee maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal sama di ko ñaanal waxlu Sénégal yëpp. Mhm. di ko ñaanal julli yëpp di ñaan sama kàddu yàlla na yàlla mu fay def mu fekk ñu nekk ci jàmm mbas mi nekk ci monde bi di lëmbe ñëpp yàlla nañ ko yàlla teggin mhm. di ñaan sud bi ñu nekk fii tamit yàlla taxaw ñu jàppale ñu. ba lépp luñ ci bëgg a muy seen mbégte yàlla defal ñu ci ndam. barka mm-hmm. di kontaan trop nag ci toogaat ak yow tey jii. Mm-hmm. ñuy waxtaanaat lu jëm ci mbiru làmb. Mm-hmm. di nuyu Moussa kii Ba Babou. Kaago Kaago. Adama Adama di nuyu Adama ak sama doom jële Mm-hmm. waaw du nuyu ñëpp daal xam nga rek ku dul jo doo matale mm-hmm. doo ju waaye mm-hmm. kon maa ngi nuyu ñëpp di baal ak baal ñëpp mën na jërëjëf Père tey xam naa ni duñu mujjee dem ci tele bi parce que dafa am benn waxtaan bu mu ñu waxtaan ko man ak yow euh, parce que léegi dañu gis ci làmb lu njëkk loo xamante ni daawuñu ko gis ci làmb wala boog ci taarix daawuñu ko dégg daan na am ci ci ci mbër wala ci ay écrit Euh, ñu dem ba gis ki nga xamante ne mooy suñu papa Moustapha Guèye mm. euh, coow li nga xamante ne jot na mm. am ci digganteem ak Gris Bordeaux mm. euh, parce que Gris nee na Tapha papaam la nañ génn seen diggante ñoom ñaar mais li ñu jaaxal mooy père Moustapha day doon entraîner écurie Fass nekk seen directeur technique ba pare en même temps Balla Gaye bi muy bëreeg Modou mu yoroon Balla Gaye doon ko entraîner tey Balla Gaye dem ba war a daje Gris mu doon ay coow yoo xamante ni jot nañ ko ci dégg. ba combat bi sax moom père Moustapha Guèye nee na ci presse bi la ko yëgee Gris Bordeaux ko benn yoon wax ko ci combat am. ak ki nga xamante ni mooy euh, Balla Gaye. ko kon foofu manque de confiance du am ci ñaari. waaw jërëjëf euh, maa ngi sax di la gërëm ci question bi ni ko laxee leer na. Hmm. mais dama bëgg a xamal ne Moustapha est-ce que nit ñi gis nañu foo xam ne moom Balla Gaye ñuy entraîné. muy song mu naan ko nii lay songee nii lay demee maanaam di ko jox ay leçon hmm. ndax loolu wane nañ ko dañ ko gis wala dañ ko dégg hmm. parce que man gisuma image dégg naa ko ni nga ko déggee hmm. ñu ne moo euh, dégg nga te Balla moo war a gërëb dégg naa ko mais gisuma image bi est-ce que yéen ñi daw ak ñi seen ndax gis ngeen image bi man de gisuma image ah, kon xam nga wax la dañ ko wax rek dañuy wax rek da ko daan entraîné moo ko daan entraîné nangam nangam yooyu yëpp te ay waxi kese la. wax nag bala ngay wax bala nga koy dëggal da teg nga gis ñu teg ko fu leer nañ. muy noir sur blanc nga xam ne lii maa giskat kat diw mii di entraîné diw mii te diw mii kat diw mii la àndal. Moustapha Gueye nan la war a mën a àndee di doomi Fass di mbërum faas def fa éeg def fa jaloore ju nekk tey ji mu dem ba bàyyi bëri yor ay gone di leen tàggat succès bi ne woon ci ginnaawam yëpp wiire ci kaw mbër yooyu mu dee mën a leen guddi mën a leen bëccëg ñu dellu ginnaaw ba dem ba kooko am combat muy wut koy entraîné pour mu pour mu daan bërëm parce que Gris bu daanoo faasa daanoo. mais bi mu koy def du moon Gris doo ak Balla Gaye. waaw boobu Balla Gaye moo doon dajeeg Modou Lo. ah Balla Gaye moo doon dajeeg Modou moo doon dajeeg Modou Lo mu ah, dem ànd ak Balla ah, Gaye. doon ko jàppale ci combat bi. Mhm. loolu tam ba tey euh, mën naa nekk. Mhm. mën naa nekk. Mhm. ça dépend ci relation bi nga xam ne moom la am ak Balla Gaye. waaw bu fekkee ne seen relation rafet na. mën naa am ak moom relation wala boog mu am ak koo xam ne kii relation comme ni mu mel ak Aziz Ndiaye. Hmm. Aziz Ndiaye Balla Gaye di mbërëm. Hmm. mën naa ñëw ne ko booy jàppaleel sama booy bi. Hmm. bu boobaa teraanga mën naa dox seen diggante mu ne ko téye ci nii te jàppaleel ma sama booy bi mu am dal. puisque moom war naa mën a def loolu ba pare. fekkee ne lool nag loolu nag conscience am moo ko ci may. conscience am moo koy may nag ah man kat maa ngi entraîné kii nag koo jox xam-xam waaye ëllëg sama poulain. te bu dajeeg sama bu ma ko jàngalee lii ëllëg si mën na ko def sama poulain kon naa bañ. Hmm. kon mën na koo teelu mën na koo def waaye bu ko defee day nëbbu. Hmm. du doon luy feeñ. Hmm. waaw bu fekkee waaye ne ko fàng ni wane ko di di ne mooy entraîné kële pour mu daan te ëllëg mu mën a dajeeg bërëm loolu xel mayewu ko. li tax euh, combat bi ba léegi dafa mel ni nëbbu la. parce que amul wala boog bari na ci réew mi ñoo mm-hmm. xamante ni. Mm-hmm. vidéo boobu ñuy wax dañ koy dégg rek mais ah. kenn gisu ko ci parce que mm-hmm. buñ ko gisoon. dañ ko jox site internet yi ñu dugal ko. Euh, ba tax na ñu ci bari xam nañ ni. mustafaa per Moustapha ànd na ak Balla Gaye doon ko jàppale. mais gisuñu benn video yu mun a firndeel loolu. mais moom tamit tamit euh, biñ ko ko waxee weddiwu ko benn yoon. mais na yéeyu ci yàbbiwu ci. waaw ba tey xam nga yéen leen dina am ànd euh, Abdou Khadir. Hmm. ànd day sincère. la te àndu làmb léegi ànd béjjénu nag la. Hmm. ànd béjjénu nag la. àjjën ànd béjjénu nag mooy dañuy bokk benn bopp mu kenn laal moroom bi. Hmm. bopp nag bi ñaari béjjén yi ñoo ko bokk. dëgg waaye xoolal benn béjjén du laal moroom. loolu nag du ànd. déedéet ànd day sincère. dañuy xàccandoo di dóorandoo mhm. looy def yëgal ma lu may def yëgal la mhm. nga yéene jàmm ji ma la yéene nga yéene ma ko mhm. taraanga ji ngay am nga toll ci am taraanga may bàyyi samay nelaw bàyyi samay entraînement bàyyi sama lépp di jàppale pour nga am ndam boobaa taraanga ñu naa ci gis sama bopp mais li bari ci mbëri da ngay ànd ak ñoom te di nga am taraanga te doo ci gis sa bopp ñuy lijjanti seen i combat di lekk seen alal di am sa xeet dërëm bi ñu la ko defal loolu bu yàggee boo ko mënta wax ca kaw tamit di jëf ca suuf xam nga nooy jëfee ci suuf. Mm-hmm. mooy dootoo daraam dootu la saf. defetam ak victoire am nga yemale. nga yemale waaw parce que ki ëmb sa kersa foo mu ëmb sa sànq ki ëmb sa sànq la foo mu ëmb sa kersa. wala fa ko wax. Mm-hmm. xam nga lu tax wala fa wax loolu. Mm-hmm. parce que ki nga xam ne kii tey jii teranga mu ngi dox jóge ci yow di ñëw ci moom. am na yu ñaaw yoo xam ne doo ko def. dëgg la waaye bu teranga di demee benn boor di nga dina jëmatee teranga dina ñëw ma ma ne sama yoon newu ci seetaan ko. damay xam ne lu ma ca bàyyi écrit baa ma ca bàyyi ak nii waxi nit ñi rek tax ma bàyyi ci waaye yow jaroo àndal moo tax gis nga làmb bu njëkk kóllëre ko daan ndox diggante ménage ak mbër kóllëre la woon diggante mbër ak morom ñu bokk écrit kóllëre la di nga dem sax di ñaanlu foo xam ne fii pour ñu sa daan te du ko sax parce que boo amee ndam yaa am ndam boo amee gàcce parce que Moustapha Gueye fi mu ne nii écrit face fa am ndam rek mu am ndam Mbaye Gueye ku am face écrit rek mu am ndam parce que ñoom écurie bi mënuñoo génne nañu waaye doomi Fass lañu. Hmm. te ñoo nekkoon écurie Fass. kon tey jii su demee ba mbërëm di fa bëre ñu dem ñu dem conseil keneen conseil keneen te kooku mën naa dajeeg mbërëm ah nañ seetaat diggante Gris ak Moustapha Guèye lu jar a xoolaat la nag. Hmm. bu fekkee ne léegi seen diggante rataxul nañ ko fexee rataxal. parce que kenn mun cee dem bàyyi moroom. Hmm. waaw te li ma jaaxal mooy. Balla Gaye mooy seul mbër mi nga xamante ni ku mu bëreel daan la ba pare. doon nga xaritam. ñëw nga di ko jàppale ci entraînement mm-hmm. benn ci Baboy ñaar ci Ousmane Diop. Mm-hmm. Euh, ñett ci ki nga xamante ne mooy Tyson. Mm-hmm. Euh, ñeenteel bi ñu ngi koy dégg ci Moustapha Gueye te ñooñu ñëpp ku ci nekk am na ak yow tàkkusaan boo xamante ni doo ko nettali kenn. loolu moom jaaxal na ma trop ci Balla Gaye ci jëmmi Balla gay la wala ñoom ñooñu nga xamante ni ñoo ñoo bokk ci làmb ji dañoo fan Balla gay bëgg ko ba tax ñuy dem di ko jàppale. jërëjëf excellent euh, question nga laaj. xam nga Balla dafa am jikko boo xam ne bii ku ko nekkee mën naa nekk ku ne. Hmm. parce que dafa ñaawu njort. Hmm. gis nga njort boo gisee yàlla tere ñu ko. Hmm. boo demee ci téere li may wax alxuraan la. borom bi taala moo ñu ijtanibu kasiiran mina ba mu ne yéen doomu aadama moytu leen njort naka leen njort bàkkaar la. nañu moytu ñu Balla Gaye nag yàlla da ko def mbër waaye njort ñu ñaawul. gis nga bu ñaawul njort daal maa gis leen loo xam ne kenn nettaliwu ma. maa teg sama bët muy bëre Yékini. xoola combat bu toll ni contre Yékini di ndam di combat bu rëy bu muy bëri ma gis ñu sànni ko crème hmm. jël sànni ko mu daal ne mu fokk ko parce que mu ne ko jox ma mu jox ko mu faxas ci mbubb mi ni dagg ma ci continuer dem yoonam hmm. loolu mbër mu ñaawoon njort a koy def hmm. dafa am mbër yoo xam ne seen carrière di ko gën a téye dañoo ñaaw njort gis nga ñaaw njort dana yàqal mais du la defaral mukk ci àddina Balla Gaye daal daa ñaawul njort nag gis nga ñooñu boo gisee ñu bëri moom ba pare ba pare ñeme ko daa ubbi ginnaawam bu xataloon ginnaawam kenn du ko wuy si. Mm-hmm. maanaam par exemple yéwén na ci ñoom. Mm-hmm. parce que man demandé lekkuma dërëmam. Mm-hmm. télévision laay waxee. mosuma naan boisson. yaa ngi dégg li ma la. waaye yaakaar naa ñooñu bu amee combat ñu taxawu ko. daa fekk na boobu mu ubbil ginnaawam. waaw parce que bu xataloon ginnaawam ñooñu dañ ko jege. waaw mbër nag ah day yaatal ginnaawam. ñi nga xam ne mën nañ koo rapporter dara. ñoo ñëpp mu fexe ñu jege ko. parce que ñoo ñëpp kenn ku ne jaar nga ci làmb bu doon benn fépp xam-xam sax mën nga ko dolli. mu hmm. boole li mu am. Hmm. loolu rek ko may loolu loolu laa yaakaar loolu ko may. Hmm. waaw. tey Père ni nga mel ci làmb yor écrit euh, bu sàkku xam-xam ñëpp xam ni euh, écrit boobu écrit Père Birahim Ndiaye tey su ma la soxla woon yor beneen mbër bëgg nga jàppale ko entraîné ko su ma la jësee di nga ñëw jàppale ko waaw mais du ma ko mën du ma ko def man lu tax Père waaw bu fekkee xamul tax bu fekkee ne léegi yow man mbër yëpp samay doom lañu dama leen jàpp comme doom. Hmm. nit nag mën na maa woo laaj ma conseiller. Hmm. ne ma ah man de papa dama am combat ma bëggoon tey ma damaa war a bëri bëri combat ma bëggoon nga laaj ma conseiller ma la ah, conseiller bi de nga ma xam ba de muy préparer combat nii ak nii ak nii la. waaye am maa summi ko nag takk blouson di ànd ak yow fajar di préparer combat loolu man du ma ko man père ma ñëw sa kër ne la damaa bëggoon nga jox ma quelques clés yoo xam ni. waaw mun naa ko yóbbu laa mujj te bokkuñu écrits yi doo ma ko defal. waaw bu fekkee ne léegi xool naa adversaire bi xool ne kii te jii points yi ma yor mën naa dem ba dajeeg ñoom. Hmm. te ay seeni adversaire lañu. Ah, gànnaay yi nga war a xeexe boo ko joxee boo demee doo gañe. déedéet ah, yi nga war a xeexe. Hmm. nga dem joxe ko boo demee looy xeexe. kon yow yaa ngi sóoraale say poulain ëllëg. waaw maa ngi sóoraale samay poulain ëllëg si biir. Hmm. dégg parce que émission yi may def di wane ay feem ak yooyu sax ak yooyu. dama leen koy wan nii waaye am na ci loo xam ne secret bu ñu la ko defee la la ci war a génne suba. da ngay fexe la ko def waaye bu la ko defee la la maa ngi koy jàngal. dama naa ne bu ñu leen def lii waaye bu ñu la ko defee ëllëg bi lii moo la ciy génne fexeel na nag booy bëri bu ko may hmm. waaw loolu dama koy jàngale waaw am na ñoo xam ne am nañu bopp nag ñu ngi may am na ñoo xam ne ñu ne ba tey nag li ngay wax la jaar génn fii hmm. dara loolu tamit. Euh, leer na. waaw mais père damaa bëggoon ñu dellu si ci yow. waaw ñaata combat nga waaw man bëri naa cinquante sept ñaata victoire. Euh, am naa ci euh, quarante quelque parce que daal am naa ci. Euh, six défaites. Hmm. dégg nga ak onze matchs nuls. cinquante. six cinquante sept combats laa def. cinquante sept combats. waaw am naa ci six euh, six défaites. six défaites six défaites ak onze matchs nuls. onze matchs nuls. waaw li ci des yëpp nag yàlla defal na ma ci ay ndam. kon mu nekk dix huit combats yoo xamante ne daan na ko. waaw ëpp na. ëpp na lool ëpp na lool. Euh, ma ci. waaw. loolu de loolu de moom. 57 ah, combats daal laa bëri. 57 ci sama ba grand combat 57 combats laa bëri. 40 am na 40 victoires. 40 victoires ci laa man dama commencé petit combat ba grand combat. Hmm. booba da ngay grimper. Hmm. da commencé quatrième combat di daan ba sa yooyu jeex. Hmm. nga ñëw troisième combat. di daan ba ñooñu jeex. ba ñooñu ngay mën a tangool jeex nga dem deuxième combat. deuxième combat nga daan di daan ba jeexal foofu. ñi nga maaseel foofu ñu jeex ñu commencé na def le combat spécial. Mhm. léeg-léeg ay samedi ñu tëggal le combat. ay fête ñu tëggal le combat. Mhm. waaw bu combat bu mag yàqoo ci biir semaine bi ñaar ñu war a bëri ñu ñu war leen a boole ñu war a bëri des combat ba yàqu ci biir semaine bi. ñu jël ñaar ñu war taf ñoo remplacé ma ko quoi. Mhm. yooyu nag ñaari mbër yu am succès ko doon def. ñaari xale yoom am tur yoo xam ne am nañ pour bañ a annuler dimanche bi wala samedi bi. koo xamante ne daanu la daan ko ku ma ku la daan koo xam ne yow daanoo ko ci làmb. ah kay. Hmm. am na ku ma ma ma comprendre ba nga ne. maanaam comme tey man ak yow ñu bëre. waaw ma daan la te yow daanoo parce que daan naa dégg ñaan Père Birahim ku ko daan rek fayu na jël na revanche. déedéet am na ñu ma daan te daanuma leen. Hmm. Ibou Ndafa daan na ma te daanuma ko. Hmm. waaw moo ma def ñu ci ëpp nag maa leen daan daan li mu dafa daal a ci daan te ma ko. Hmm. mais ñi des dama martiné ak ñoom ñenn ñi dama leen daan. Hmm. ñu daan ma. mbër mun naa bëri adversaire ragal ko. na ma naam. mos na laa dal ci làmb. waaw ah, benn yoon la moo ma a dal. Hmm. muy contre Laurent Daba dama bëri moom mu daan ma mais dama ko ragal moo tax mu daan ma. ragal ko père waaw keroog maa ko jël avance am kon. laa ñëkk damaa jël avance bi parce que li tax ma jël avance bi. booba temps maa ngi def feuille flam ci deuxième mooy li ma la wax sànq rek fekk Robert euh, boy euh, kii ndab si yàlla si Papa hmm. moo doon bëri ak euh, Ousmane Ngom hmm. léegi nag combat ba yàqu nag ñoom Pa Jibi Diop ne toog ba jëri ñu ne nañ leen tëgg ñaari xale yu am tur ñu ne nañ jël Birahim Ndiaye bu faas ak Laurent Daba hmm. Laurent Daba it bañ ñu jox mooy jeudi lañ ma jox combat bi ba ñu war a bëri dimanche waaw jeudi ñu yox ma ko Alay Sarr maa ngi koy nuyu de passage sama waay la nit ku baax bon mooy sama manager di sama sëñ daal bi ma yàgg Laurent bëri Eh, ma dem ma jël te xawal andi ma avance bi jox ma. Hmm. bon ma rus naa ko ragal ne ma ñëw moo la rendez-vous te lu rendez sax mënu ma woon. lan moo tax nga ragal ko. père hmm. dama ci laay ñëw sama benn xarit. mbër hmm. booba ku am tur la. mooy tab daanaka mbër mu mag la ma ñëw ne ko maag Laurent dama ñooy bëri. mu ne ma ban Laurent ma ne mu ne ma siyee tët tët ala saa dina la reylu rek <laughs> dem dugal la ci Laurent dama mi nga xam ne kenn du bëri moom nga dem di ko jël la ma. man de rus naa delloo ah yàlla saa dina la reelu rek mu wax ma loolu rek ma tiit. sama fit ñemeetul waa ji quoi. <laughs> mais nag mënutuma dellu avance bi. Ah. waaye nag damaa dem ba dellu ci biir nag ma njëkk rek dem bëri ji bi may bëree. Hmm. bëree ma xel mu dal. bëree ma fit wu dal tamit. xam nga looy def te ñemewoo ko rek. Hmm, hmm. song na ma sax xeex nañu ma jàpp ko. busulu ko ko ngembali ràcc ko. te cër yi ràcc ko ma dab dabalaat jàppaat ko mais bi ma dellusiwaatee Hmm. waaye bi ma ñibbee kër ga nag laa dem ne kii maa ko ragal ba mu daan ma mais mënuma hmm. mënuma kon yow est moo la naawal kookoo ma daanal nag moo ma daanal te sama mbokku mbër damaa bañ ngi dund maa ngi ko di moo a ragal waaw parce que boobu moom la boo xam ne bii hmm. bi rek laa tiit waaye ba ma kër ga nelaw ma guddi gi yëpp ma xam dama ne kii xam ne maa ko mën dama maa ko ragal ba mu daan ma mais maa ko mën addunay dox ma daan ñoom si tafa ñoom jëli Birama Thior ñoom Mamadou Thior daan gaay daan ñoom Alsaan Ñang bu eh, ngi daw daan ñoom eh, kii eh, waa ji Assane Mbaye Fall yi hmm. daan kaay mu neexle waat léegi ñu boole waat ñu nag Assane Diouf yaa ngi Laurent Daba mi nga ragaloon ñu dajale waat àdduna dox ñu boole waat laay loolu dina neex léegi photo yaa nga kër ga xëy ma génn law gis nga jour boobu bi ma xëyee mënumaa lekk ndax sama biir bi tuuti laax laa lekk rek sama biir bi ne kecc maa ngi ku guddi gi ba jant bi dafa gudd ci man hmm. dafa dama bëggoon ñu jël jant bi rek indi fii mu saw. parce que gudd bi dafa gàtt dafa gudd ci man. dafa gudd ci yow. keroog la ma booy naar faal ndam si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana góor bu baax. bi ma ñëwee ne ko maag bëri. mu ne ma ah fils yaa ngi door a yaa ngi door a bëri mbër ma ne ko père mu ne ma ne ko xam nga bëri passé dafa am ci laxas woon. mais bu dimanche nga xam ne mënuma. te ba dimanche keroog mbay gay mii mu ngi dund na ko yàlla may wér. Hmm. mbay gay keroog kaw tribune la dem toog. Hmm. ak ñett commencé gars yi ci bëri bëgguñu ànd ak man biir géew. ndax la ma Laurent Daba daf may waaye man découvrir naa ne. Hmm. bee daan ma mais maa ko ragal ba mu daan ma mais maa ko man lu ñu benn sax. ba fekk am na loo ko guuxal. waaw boobu parce que booba booba li ma ko guuxal mooy daan dama ci ragal la ma daanee. waaw ragal la ma daanee. Hmm. waaye waaye bu ñu jël siwaatee. Hmm. la la arbitre dafa suuree ma dox ci kawam. salaamaaleykum mu do rek ma fël ko daw yëg ko. tëgg ko arrêt de gauche fii ñu taj ba fii. gëdd ko mu xam mu sigi ma daw dugg ko yenu ko ba tekk sama bopp dóor suuf bay ngay dawee kaw tur bi ba ñetti morsom nii la ma laxasoo ci biir géew bi gis nga moo tax booy dama leen mbër day gëm boppam hmm. xanaa xamoon ne booy yu mbër yu bari daan nañ leen seen moroom leen daan mu leen daane ragal loola nga ñëw tey ngay mbër may mbër jii nga ñëw ne ma am ah, man dama am komba maa la koy bëri nga dema diw ma ne laa ilaha illallah yow kooku loolu lu ci kooku sëriñ am na sëriñ boo xam ne bii nangam nangam kooku li mu def nii ba mu daanee diw nangam nangam pour te dire ci gàttal ma nettali benn affaire. Hmm. la docteur Faye nii. Hmm. bi mu fi ubalee Kaolack teg fa trois ans. ndébale hmm. bi keroog bi ma jëlee avance sama war a bëri sama benn waaye na ba ci man ne ma am na ku mu bëreel koo xam ne koo ko daan ku dee. ma ko Ousmane loolu tax nga di ma wax loolu. ma ne ko jël naa avance bi ñu war a bëri ba pare nga ñëw di ma nekk. <laughs> te du ma ko delloo ginnaaw lu tax ngay wax di ma wax loolu bu ma waxatu yooyu. <laughs> ah nga boo sa waroo ma ko wax ma mer. waaw waaye ba ma dee moo gën a yomb samay combat. Euh. boobu lappaat boobu lappaat la la. waaw day waaye non non mais gëw ma ko. man xam naa ni mu dëgg. waaw ma xool ba ñu demee combat boobu moo gën a yomb moo ma nekk tey moo gën a yomb samay combat bi ma koy jëkk daan kaw la. Hmm. ñu fii ma daanaat ko fi. Hmm. fii ci Bamar Diop. foto hmm. yaa ngi man yaa ngi dégg moo tax nit ki moo la mbër dina daan mbër fekk na yaa daan sa bopp. waaw na daan sa bopp sa mbokk mbëreel daan parce que moo la ragal loo. waaw moo tax samay gone ku ci ñëw ne ma diw laay ñu ngi may déglu bu ñu ma seetaanee site bi dañu xam li ma wax dëgg la. Mm-hmm. dañu ma naan am naa am nga condition boo mën a bëri moom ah mm-hmm. na ko moom xam naa ne ah. mooy bokk ci liy njëkk a. man moom loolu liy njëkk a da ngay ñeme adversaire bi. Mm-hmm. ñu bari dañ leen dara daanu leen galaaj daan leen tiir daan man kay toog naa ci baatu xam naa ba tey numéro daanu ma xool ma xam ne kii ragal donc daan te ñëwee ma ko wax parce que boo waxee ay bokkam yaakaar ne da nga koo bañ. da nga ko hmm. contre wala da ko nangam te loolu lay du ma ci ma fekk. Hmm. balaa caag ma wax la dëgg man bu ñu wéetee mooy waaye samay gone ci boppam damay xam ne ñëw daan nañ la may ragal dong la daanee. Hmm. waaw bari na ci xale yi ñu bari parce que boo xoolee sax ci action bëri yi ni muy demee léeg gis ñu daan ko doon action boo xam ne yow mi bëriwul sax da ngay toog xool kii waaye xool jël bi ni mu yombee. waaw ah te fekk na booba gis nga yow boobu ñaar a koy waral. très bien xam nga lu koy waral. benn bi da ngay gaañu di ko nëbbu Hmm. soit nga am seenu nëbb ko wala nga am sew yu nëbb ko wala nga nëbb ko ragal waa yooyu rek la gaañu gaañu boo nëbb hmm. ak ragal waa ji loolu rek moo lay tax daanu ñi mooy daanu jël yu soof yooyu hmm. waaw ñu ne la nga waaw parce que ñi ma wala parce que looy def te ànd doo dem looy def te ànd woo ci fit mu dëgër doo dem waaw li koy gën a dëgëral nag mooy nga fexe ba góorgóorlu am ngërëmal waajur nag am sa ñaanu waajur nag parce que ñaanu waajur toujours dama leen na ngeen ko jiital parce que ci la lépp nekk dëgg la parce que yàlla mi bind ci biir biir doomu aadama moo ñu ne jaamu leen ma te ngeen rafetal seen digganteeg seen waajur. dëgg la borom bi tabarkaala mi ñu bind sax xam ñu. Hmm. moom mu ndege moo ñu wax loolu ci alxuraanu karim bii ñu gëm. Hmm. te ñun ñëpp gëm nañu téere bi waaw loolu bu ñu ko weddee rek gis ko. Hmm. moo tax jibar yi ngay jox ay cinq cent mille kii million yooyu da amul solo teralal yaay ak sa baay rek te nangoo entraîné te jàng bëre <laughs> comme bëre la neex jàng ko comme bëree la neex jàng ko. teral say ñaari waajur wax la boo xamante ni képp kuy mbër dégg nga ko ci ki nga xamante ni mooy per Birahim Ndiaye yàgg na koo wax. mbër du wor fonkal say ñaari waajur. di leen teral. Euh, gëm sa bopp nangoo entraîné. lépp loo bëgg ci làmb di ko am. donte loolu muy wax ba tey bi ñu bi bi ko dal di wax ba léegi loolu la ñuy xal di gis ci làmb làmb saa su ne kilo la ëpp jom. Mm. gën laa ñeme entraînement gën laa fonk ay waajur. Mm. saa yu ñëwee ci làmb day jël ndam ni Mm. kon yéen mbër yëpp ñu leen di jaajëfal mm. père ma lay jaajëfal bu baax a waaw jërëjëf di kontaan ci yow rek parce que tamit euh, waxuma sax mbokk gi feeñ ci ñun mm. parce que àddina mbokk daan day xeeñ parce que tey bi nga demee yaag soxum yaag euh, euh, kii rakku ot sa saaw bi kii ñaxu ñaxu yaa mag si yaay bokk ndey ak ma ne koy sama jarbaat nga booy ak Tosaaw ak Tosaaw ak Kona ñoo ak ak kii Sarr maam Biram Sarr ak ñoo ñëpp fay Sarr boobu ñoo maam Moussa Sarr ñoo bokk ba maam Moussa Sarr ñoo bokk ba ah, man kay li nga xam ne sa kanam gi ñëw parce que ma famille boobu samay famille lañu Ablaye Sarr it ma di ko gërëm di ko nuyu nit ku baax ndeysaan moo ñu daan yóbbu huit boobu fële ci unité ci ca parcelle ci unité booru unité quinze defal ñu fa benn huit di ñu di ko entraîné maa ngi cent dix mètres xëy la daan def mm-hmm. ndeysaan Hmm. champion d' Afrique la. ma hmm. di ko nuyu de passage ñooñu ñëpp. ci famille boobu famille bu yaatu la ca Fass. dëgg la waaw seen hmm. kër dama fay dem. mère Sarr ba fa nekk Ndeye Sarr Maguette lool. Ah, dama fay dem ñoo julandoo jàkk ji boobu maa yee foofu. soxna Sarr yàlla na yàlla na gën a guddal. kon kay xam nga ne man li may xam naa ko. dëgg la <laughs> li may toogandoo ak yow yëpp mosuma xam loolu. te yow kon maa ngi ñaan yàlla yàlla rafetal suñu ànd. Uh-huh. rafetal sud bi rafetal famille bi rafetal ànd bi daal. Mm. te yàlla def ci barke na mm. yàlla nañu yàlla defal barke daal loo yóotu. Mm. yàlla na ci yàlla def barke. amiin yaa rabbi barke rek mooy dundal lu ne. amiin amiin waaw waaw. jërëjëf jërëjëf kontaan trop. jërëjëf. jërëjëf mbokk yi kon loolu lañ leen ci jàngat làmb Baye Djily ak Père Birahim Ndiaye ba ëllëg allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf. ndaanaan laa ñaari yoon. kon boo jaar booba laa mëne. boo jaar. fafa laa mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yëley nu roowu maag ñoom cuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi ñii ma